bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala asrafi al anbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati alwahmi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 di nuyu soppee soppe almisbaax yi nekk ci biir réew mi di nuyu soppee soppe almisbaax yi nekk bitim réew di am mbégte lool ci ni ngeen di toppee jotaay bi ni ngeen ci ànde ak ñun di ko rafetlu bu baax a baax ñaan ñu daje cee ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala ñoo ngi nuyu baax a baax jàngkati alxuraan yi jàngalekati alxuraan yi di nuyu imaam yi di nuyu sëriñ si di nuyu soxna yi di jégalu bu baax suñu bindu almis baaxu démb dañ koo baamuwaat ndax léeg-léeg eh, mu sax dàkk xaw jafe ndax yennat yi nga xamante ne day gaar ci penc mi ci ay xew ak yennat yi nga xam ne mooy gàllankoor yal na yàlla nangu seeni ñaan ci ñun nangu suñuy ñaan ci yéen ñooy nuyu bu baax a baax suñu jigéen docteur Anadia di feddali kóllëre bu baax di teg nuyoo ci loxoom mu nuyool ñu soppee yépp naka noonu suñu wayjur Baye Ibrahima Fall foofu ci Touba Guèye suñu wayjur Baye Galaye Ndiaye ñi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun jotaay bi suñu bi jotaayu baax bi ñu tegoon suñu baaraam ñi ngi doon waxtaane lu jëm ci wàllu dimbalante ba agsi woon ci euh, dayo bi nga xam ne moom la am rëy lool te màgg lool ci dundug julit borom bi subhaanahu wa taala bëgg ñu koy defante booy xool yi yàlla bind ci kaw suuf daa mel ne yi bokk yëpp benn mënu cee dem bàyyi moroomam te ñoo nii ñu ànd noonu la dimbalante ba ca sànq leen yaa xorondoom yi sax léeg nga gis ñuy watat mbir moo xam ne kenn ci ñoom du ko attan waaye kenn ku ne day ŋànk ci wet bu ko defee ñu daal di diri loola doon dimbal ci ñoom moom laal doon wax ne la ba ci taxawaay boobu moo taxoon borom bi ne nañ ma dimbali te yàlla buy sàkku ndimbal xam nga ne mons bëgg a jàngalee tax waaye mu ne wala yansuranna allahu man yansuruhu borom bi subhaanahu wa dana dimbali ñi nga xam ne ñoom dimbali nañ ko ma waxoon la ne dimbali gi ki di dimbali boroomam muy nasrul muslimi li rabbihi loolu boobaa day nekk yakunu bi taqdimil awni li aqihi muslim Euh, mooy dimbali gi nga xam ne moom lay dimbali mbokkum jullitam ak taxaw gi muy taxaw ci sàmm yi nga xam ne yàlla da ko yoonal ci seeni diggante bu ko nit ki taxawee rek mi ngi taxaw li war digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala ci jëfe ndigal yi waaye la ca war ci bàyyi tere yi moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne nga dimbali sa mbokkum jullit bam naan unzur aqaaka dimbalil sa mbokkum jullit ak nu condition bi mën a mel rek na nga dimbali sa mbokk ak lu mën a xew moo tax mu ne zaliman aw mazluman moo xam bu tooñee wala ñu tooñ ko yépp na nga ko dimbali téye ci tooñ kat te ci loxob ki nga xam ne day doon lore yaa ngi dimbali ki muy lor waaye yaa ngi dimbali yaa ngi koy dimbali moom mi nga xam ne téye nga ci ab loxoom badox dox digganteem yàq yi nga xam ne moom la doon yàq ci pénc mi moo tax noonu la ko alquranul karim jàngalee noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee alquranul karim indil ñu ci ay aayaat yu bari danaa ci am yoo xam ne danaa ko indi boo demee ci suratu ali imran bi borom bi subhaanahu wa di nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digganteem ak mbokki yonentam yi digganteem ak naataango yonentam yi borom bi nee na damaa fasante woon kóllëre ak yonente yi jiitu woon yonent yàlla muhammad ne leen ndax buñ leen joxee ab téere jox leen xikma waaye yonent bi ñëw ndax da ngeen dëggal li nga xam ne moom la indi ñu ne waawaw danañ ko gëm duñ ci yem waaye danañ ko dimbali baatu danañ ko dimbali boobu mooy ñoom wax nañ ne buñ fekte woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ koy gëm waaye dañ koy dimbali borom bi ne leen jàpp naa loolo moom la alquran di wax naan wa id aqata allahu michaaqa annabiyina lama aataytukum min kitaabin wa xikmatin summa jaakum rasulun musaddiqun lima maakum la tu'minunna bihi wala tanzurannahu ndax da ko gëm ndax da ko dimbali ñu ne aqarartum wa aqastum ala dalikum isri xaalu aqararna xaala fashhadu wa anna maakum min ashahidin ñoom ñëpp ñu nangu ne boobaa danañ ko gëm te dinañ ko dimbali baatu ndimbal xam nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jógee màkk ñëw madina ñam fekk madina ñoo ñooy al ansaar ansaar mooy ñi nga xam ne ñoo dimbali yonent bi ñooy ñi nga xam ne ñoo teeru yonent bi alayhi salaatu wa salaam dimbali ko ci dalal ko dimbali ko ci fekk ko protéger ko ña jóge màkk fekk si ko ñoo ñooy muhaajiruuna yi te mooy ñi nga xam ne dañoo gàddaay yal na yàlla yokku leen a gërëm muy al na wal ansaar waaye yokk gërëm ñi nga xam ne ñëw nañ ci seen ginnaaw wallatina jaaw min bahdihim te ñoom ña ngay góorgóorlu seen camtulaayal kàttan waaye ku ne xam na ne yonent yàlla Muusa alayhi salaam dafa am ñu mu àndaloon am ci ñu koy dimbali ba mu bëggee ndimbal dëgg dana yàlla defal ma na muy saa loxoom ndeyjoor doon koo xam ne dina ma dimbali ci liggéey bi ma nekk yonent yàlla Isa ak ku koy dimbali is qaala alxawaariyuuna Euh, loolu la waxoon moom yonent yàlla isa ne leen man ansaari ilallah kan moom may dimbali ñu dem ca yàlla nga gis ne kon ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu ñoo soxla ndimbal ñoo soxla ku leen jàppale ci mission bi nekk asama ku dul moom moo tax léeg-léeg nga ne kilifa diw de jàmbaar la waaye entourage am bi ñoo baaxut léeg nga dégg ko léeg sax ñu waxal ko suñu chef de l'état yi wax ne président moom wax dëgg yàlla jàmbaar la ku am ay yéene la ku am nangam la waaye gis nga lu njiit jàmbaare jàmbaare ñi ko wër bu ñu àndee ñoom ñëpp doon ñu yaafuus ta bon léeg-léeg mën nañoo dox dox digganteem ak ni yëf yi di ci moom ba ni mu ko war a faje du ko faj loolu moom day am ci suñ penc yi te yàgg naa am yàgg na am moo tax Seydina Umar ibnul Xattaab radiallahu anhu mi nga xam ne kuy jàngale état ak taxawaay sa xel dem ci moom léeg-léeg da daan bëtt kiiraay yi nga xam ne moom la ñu muur kilifa ndax kilifa boo moytu ñu muural ko ay mbalaan yoo xam ne lay xew dootu ko yëg dañ koy rooti di ko indil waaye dañ koy soreeleeg suuf gi ba dootu xamati lu xew waaw maanaam dañ lay tungooma tungoom ba say tànk dootu laal suuf ñu ronu la nag doxi seeni soxla bàyyi la fa yow nga toog musiba mënta weesu loolu moo tax ngay gis Seydina Umar ibnul Xataab radiyallahu anhu doon génn di dox ci mbedd di Madina yi ndax di xam li xew waaw bu doon tey la kilifa gi kon war a jàpp télé yi jàll yépp ci li ci jotam am waaye war a déglu noppam ci nit ñi nga xamante ne falu leen di leen fay ngir ñu koy conseiller ndax léeg-léeg ki ngay ki ngay fay ba noppi ne ko dema xelal léeg mën naa am lam lay xelal wuuteeg euh, maanaam du wuuteeg say bëgg-bëgg day dàkk sama xel di fetal loolu nag euh, noonu yi la demee waaye léeg-léeg Euh, ñoom yonent yi alayhimu salaatu wasalaam soxla woon nañ ñu àndaloon ci mission bi daan ci ànd ak ñoom daan waxtaan ak ñoom ñooñoo taxoon euh, bu xare masaana am ñoo ñaay laxasaayu xare-xare bi boo ñëwee ba ci ñi doon yonent yi te mooy borom xam-xam yi ndax ab sëriñ moom borom xam-xam lañ daan nattante de mooy ab sëriñ léegi lañ mën a am fitu am sëriñ boo xam ne danga naan mooy sama sëriñ waaye sëriñ bi ne man jànguma maay seen sëriñ waaye man jànguma waaw maay seen sëriñ waaye man moom bu may def safaan ba it bu leen ma ci roy waaye nag man maay ki nga xamante ne maa war a jiitu man lañ war a gëm man lañ war a topp loolu moom bu yàggul la xew waaye ñi taxawal yëf yi yépp nag buñ delluwaate tey wax dëgg rek te yàlla tax dañ koo taxawaloon ci xam-xam taxawal ko ci njub taxal ko taxawal ko ci ragal yàlla daan ci woo nit ñi daan ci woo nit ñi ñi leen daan wuy jiit dañ daan dem ngir ñu yokkal leen loolu dañ daan dem ngir ñu yokkal leen loolu waaye daanuñu dem ngir yokki am mbooloo ñun léegi dañuy yaakaar ne ki ëpp barke mooy ki ëpp mbooloo waaye ki ëpp barke mooy ki gën a mën a jubal ki tegu ci aw jub tey jubalaate ko ëpp barke moo tax boo jëlee misaal ci ku mel ne Serigne Touba nit daan na ñëw ci moom andi aw tur woo xam ne dëppoo wutal ak turu lislaam mu soppil la ko mu soppi tur wa ne la tur sangam moo gënal lislaam tur sàngam xanaa foofu la njàngum diine mi tàmbulee waaye daan na santaane ab liggéey nit ñi di ko liggéey waaye benn chart bu cay am mooy bu waxtu jaamu yàlla jotee ñu bàyyi ko te dem jaamu ji yàlla maanaam te dem julli ci misaal rek laay wax ak yeneen yi nga xam ne moo koy nuru yépp ànd googu nga xamante ne ñi wuutu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom lañ doon doxale ñoomit it doon am ñu ñu àndal ñooñu doon nag ay taalibe bu dee yonent saxaaba la doon am ab sëriñ ami taalibe ab buur day ami dak Euh, bu dee chef de mu am ay ñamuy falak ñamuy àndal ci suñ jamono ji ala kuleyal olo fay wax ne benn lam du yëngutu bu boobaa ñoo ñooy dimbalante dimbalante googu door a am moo tax alxuraan di wax ne yaa ayuha alladina amanu in tutiu alladina kafaru yarudduukum ala aqaabikum fa tanxalibu xaasirin balillahu mawlaakum wa huwa xayru naasirin waaw yàlla ne na xamante ne ay yéefar lañ danañ leen delloo ci la ngeen nekkoon waaw kéefar ga ngeen nekkoon njaay àll ga nga nekkoon nekk ci topp sa bakkan di gundaandaat di fo boo sàgganee ba jël yéefar yi teg leen ci sa kanam roy leen danañ la delloowaat nga soree noonu lislaam te kon nga perte yàlla nee na man maay seen kilifa te maay ki leen gën a mën a dimbali kon ndekete tax yi muy séqal ñun da cee am loo xamante ne borom bi subxanahu wa taala ndimbal la ko tudde ndimbal moom mooy aji dimbulee ji. ci alxuraan ba tey ci baat boobu may waxtaanee di baatu dimbalante aaya yaag nam ca ñëwee boo demaatee ci yeneen aaya ju ca suratul anfal borom baa ngi wax naan wadkuru id antum xalilun mustadacafuuna fi l ardi taxaafuuna an yataxattafakum nnaasu fa aawaakum wa ayadakum bi nasrihi wa rasaxakum min altayibaati laallakum tashkuruun borom bi nee na fàttaliku leen fàttaliku leen doonoon ngeen kuréel gu néew doonoon ngeen kuréel goo xam ne bariwu leen woon bari bariwu leen woon ngeen néew doole ci suuf si waaye yàlla nee na maa leen dimbali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woote ña ko gëm dooni benn benn te doonaguñ ay boromi alal dañ daan wax sax naan ñu ñàkk ñi doo ku ko gëm ak jam ñi bañ demee sax ba ñu am maanaa bokk ci sax ñu doon mbooloo mu néew moo xamante ne ñu bañ buñ takkatoo woon mën nañ leen a def maanaam wenn wayaas waaye yàlla nee na maa leen dëgëral maa leen dëgëral ba ñetti téeméer fukk ñett mën daje ak junneeg nangam ñetti téeméer fukk ñett gañe junneeg nangam nee na loolu maa leen dëgëral waaye maa leen dëgëral ci sama ndimbal waaw maa leen defal ndimbal ndimbal laa ngi noonu kon yal nañu yàlla dimbali waaw kum dimbali doo daanu boo demaatee ci alxuraanul karim ba tey ci aaya jooju di suratul anfaal ndax day nettali lu baree ci xare badar ak ya nga xam ne moo ca am borom baa ngi wax naan inna alladina amanu wa haajaru wa jahadu bi amwalikum wa anfusihim fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladina aawaw wa nazaru ulaika baaduhum awliyaau baad walladina amanu wa lam ma lakum min walayatihim min shay atta yuhaajiru wa in istandarukum fi ddiini fa alaykum annadru illa ala xawmin baynakum wa baynahum michaaqun wallahu bima taamaluuna basir borom bi subhaanahu wa ci wàllu dimbalante gi ñuy wax nee ñi nga xam ne dañoo gëm yemuñ ci gëm waaye dañoo gàddaay yemuñ ci gàddaay waaye dañoo xare jihaad seen alal ak seen bakkan lépp ñu def ko ci yoonu yàlla gaa yooyu nga xam ne dañu wuy si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba noppi dimbali ko dimbali ko yàlla nee na ñooñu seeni mbokk lañ ñi nga xam ne dañoo gëm waaye gàddaayuñ yàlla nee na ñooñu amuñu wilaaye gu dox ci seen diggante lu dul ne dañoo gàddaay bu ñu sàkkoon ak ngeen dimbali leen ci diine na ngeen leen dimbali na ngeen leen dimbali borom bi subxanahu wa taala baat yi ma soxla foofu mooy aaya ji wa inistansarukum ñëw na ci waaye wallasina aawaw wa nazaru ñëw na ci ndekete yàllaa ngi tagg aw nit ñoo xam ne nee na ñoom day dañoo tafu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba noppi dimbali ko dañoo tafu ci moom ba noppi dimbali ko waxoon naa la wala boog illa tansuruhu fa xat nazarahu llah waaw bu ngeen ko dimbaliwul yàlla dimbali ko yàlla dimbali ko yàlla moom nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma lay dimbali maa lay dimbali ba nga xamante ne ña weddi yàlla génnee nañ ko màkka yonent bi buubi bagaasam ànd ak sayidina abubakar siddiq radiallahu anhu ñu topp montagne ya topp naaj wa topp garab ya fas yéene rawale ji seen diine ma diina bañ demee ba ci xuntima borom bi subhaanahu wa taala nee na maa leen ñaaral id axraja alladina kafaru shaani yasnayni id huma fi lxaari is yaqulu li saaxibihi laa taxzan inna maana loolu mooy ndimbalul yàlla dëgg yonent bi ak sayidna abubakar siddiq radiallahu anhu ñoo dugg ci xunti mi xunti maanaam am pax nëbbutu fa nëbbutu fa yéefar yi nga xam ne ñoo leen topp ndax waa màkka nee nañ ku indi bopp yonent bi ku ko indi muy dund wala mu faatu ñi jox la nangam ak nangam ak nangam keroog Seydina Abubakar Siddiq tiit na jaaxle lool ndax dem na ba ñu dégg ay tànk ca bunti xuntuma waaye ñu yaakaar ne ñi leen topp danañ leen jàpp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko bul tiit bul tiit laa tahzan inna laaha maana waaw yàllaa ngi ànd ak ñun mbokk yi bu ko jullit yëpp roye woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ànd gëm ne yàllaa ngi ànd ak ñun dootoo tiit maanaam liñ naan damaa stressé damaa nangam bu njëkk loolu feebaru tubaab la woon nañ ma baal feebaru tubaab la woon nga xam ni moom dafa am day topp logique ak ay science bu demee ba yëf yi logique réglé la tu ko ay science réglé la tu ko day stressé wala ñu ne xaru na wala mu ne rey na boppam wala ñu ne dugg na ci tooxi doona wala sax mu jël ab cigarette dem di ko tux wala mu dem naan loo xam ne da koy tàqaleeg sagoom ndax stressé jàpp ne dafa jaaxle ab jullit moom day gëm ne borom bi mi ngi ànd ak moom boo gëmee ne yàllaa ngi ànd ak moom fa anzala allahu sakinatahu alayhi waaw bu boobaa yàlla dalay wàcceel ak dal stabilité ngay am waaw dootoo dootoo amati perturbation yooyu nga xamante daf da ngay tiit ab jullit du mel noonu ab jullit du tiit du jaaxle yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa tapal tàpp-tàppal sayyidina abubakar saddiq ndax nit la te du ab yonent yonent bi nag moom yonent la moo tax mu ne ko mu am tolluwaay bi ma am ñaari tolluwaay yi tolloowut tolloowut waaye wa ayyadahu bi junuudin lam tarawha borom bi subhaanahu wa taala nee na ma dëgëral leen ci soldaar soo xam ne gisuñ ko gisuñ ko keroog la yëkkati lislaam waaye keroog la daaneel ak kéefër wa jaala kalimata kalimata alladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al wallahu azizun hakim nee na mu def euh, programme mu yéefar yi muy gën a jëm suuf ba àddunay tukki kàddu yàlla nag di yëkkatiku di yëkkatiku jëm kaw ndax moom ku xereñ la ku sañ la waaye mbokk yi ci wàllu dimbalante wa ayyadahu bi junuudin lam tarawha nit day fexe ba am soldaar yoo xam ne soxlawut ñu ñëw di la escorter jafe-jafe yi nga am dangaa war a am leneen lu la koy lu la koy régler lu dul loo xam ne danga koy làmb di ko daj wala say bët di ci tegu loolu nag ngëm-ngëm la ngëm-ngëm ngëm-ngëm bi ngay gëm ne yàllaa ngi ànd ak yow te li nga nekk saa yu nammee jafe-jafe yi jeex mu jeex da lay dimbali ci nga mën a jànkonte yi nekk ci sa kanam bàyyeeku gi ngay bàyyeeku am yàlla yu bari ndax bu fekkee da nga am yàlla yu bari moom ci jaaxle ngay dëkk te nag léeg-léeg nit ki am yàlla yu bari te du yëg ne yàlla yu bari la am yàlla yi biteel bi yàlla yi wëñ ko xonq gi yàlla yi buxaaba bi pour ma bañ a wax sëriñ ndax dañoo tuddee ñëppi sëriñ te ñoom duñu sëriñ bu xaaba bi waaw sarax bi ma waroon a génnee cëwri gi ma waroon a takk te takkuma ko diw boo demee moo ma liggéey ñooñu nga bàyyee sa bopp yu bari yooyu moo lay perturbé waaye bu dee yàlla mooy yàlla te mooy yàlla nga gëm ko te wéetal ko bàyyee ko problème bi bu boobaa fa borom bi subxanahu wa taala day wàccee ak lal waaye nag indil leen solution ci yëf yi euh, te buñ jàngee da ngay gis ne kon wa ay yadahu wa ayyadahu mu dëgëral leen bi junuudin lam tarawha loolu day delluwaat kon ci ndimbal gi nga xam ne moom la borom bi subxanahu wa taala di dimbalee ñi nga xam ne ñoo daw jëm ci moom. ba tey boo demee ci téere bi alquranul karim suratu xajji borom bi subxanahu wa taala dafay indi jeneen wax joo xam ne yéefar yi yàgg nañoo tooñ jullit yi waaye ñu fayu. ñu yàq seen i alal daan daanuñu fay waaye borom bi subxanahu wa taala laa nag digal leen ne leen man ngeen a xeex ak ñi nga xam ne ay tooñkat lañ waaw ay ji nga xam ne moo leen jox digalul ñu fayu moo leen moo joxe ndigalul jihaad udina lilladina yuqaatiluuna yuxaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la xadir gis nga dafa tàmbali wax ne digal nañ leen digal nañ leen ngeen xeex ak ñi nga xamante ne ay tooñkat lañ waaye yàlla nee na sama ndimbal sama ndimbal lu am doole la waaw maa leen di dimbali maa leen di dimbali comme dimbali doo am ndam ca la ngay defi gaa yooyu nag liñ leen def dafa ñaaw ndax ñoo leen génnee seen kër ci lu dul benn dëgg yéen daal lenn dong ngeen def mooy yàllaay suñ borom borom bi subhaanahu wa taala moom lañ def muy yàlla yonent yàlla muhammad la yónni ci ñun nee loolu yóbbe leen ñu fas yéene leen a néewal doole waaye wa inna allaha ala nasrihim la xabiir ndax looloo ma taxoon a jóg mooy baatu dimbal gi fi mu dugg ci aaya boobu boo demaatee ci jeneen aaya ca wet ga ci suratu xajji ba léegi borom baa ngi wax naan dalika wa man aaqaba bi misli ma uqiba bihi summa buxiya alayhi la yanzurannahu llah inna allaha la xafuru rahim la yanzurannahu llah mooy borom bi subhanahu wa taala dana dana ko dimbali ki muy dimbali mooy kitek teg tànkam ci li nga xamante ne loolu la jàngale wa jaahidu fillahi aq jihaadihi yàlla nee na jihaad leen ci yoonu yàlla waaw jihaad leen léegi nag boo firi woon jihaad leen ñu ne waa ji ab terroriste la waaw terroriste la day woote ay attentat <laughs> ay attentat yi moom def ay attentat doonut woon seen yëf waaye jihaad leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne jihaad ju ndaw ji jeex na ju mag gee ci des ju mag gi ñu ne mooy jihaat ak bakkan waaye wax taxul nag ñu ne la tëddal ñu nappaaje la tëddal ñu nappaaje la déedéet kuñ tooñ sañ ngaa fayu boo ma nee baale nag moo gën waaye na ngeen jihaat ci yoonu yàlla dëgg dëgg looloo tax borom bi tànn leen yàlla defut ci diine ji yoo xamante ne lu metti la loo xam ne lu metti la maa ngi wër baatu dimbal ci biir aaya jooju huwa kum wa ma jaala alaykum fi diini min xaraj ba aaya jey jeex borom bi subhaanahu wa taala day wax naan wa'tasimu billahi huwa mawlaakum fa nixmal mawla wa nixmal nasir waaw mooy leen ci yàlla def ko muy seen kilifa waaw nañ def yàlla muy seen kilifa moom day buur bu baax la waaye aji dimbalee la waaw aji dimbaleekat bu mag la jalla jalaaluhu mbokk yi alquranu karim indi na aaya yu baree bare yoo xam ne dañuy fekk baatu dimbulante ci biir waaye muy wane ne borom bi subhaanahu wa taala taxawu na ngir dimbali ñu bi nga xam ne yonent yàlla Muusa alayhi salaam mi ngi dox ci mbedd Égypte yi di dox ci bëccëg nee nañ sax njolloor la doon dox dañ ko daan bañ ndax ala xiini xaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulayni yaqtatilaani hada min chiatihi wa hada min aduwihi fastaxaafahu alladi min chiatihi ala alladi min aduwihi fa wakadahu muusa fa xada alayhi qaala hada min amali cheytaan innahu aduwun mudillun mubin aaya joojoog waxtaan woowu nga xam ne ci ay ci subaa jàmm leen ciy dellu siwaat yonent yàlla Muusa day dox romb ñaar ñuy xeex ñaar ñuy xeex ci ay mbokkam la bokk ci ay parandoom kenn ki bokk ci noonam yi bokk ci mbokki firawna yi ka bokk ak moom ne ko Muusa gis nga fastaxaasahu lati min chiatihi waaw ka bokk moom parti parandoom ba sàkku ci moom Muusa dimbali ko sàkku ci moom Muusa dimbali ko Muusa dem dimbali ji ko la dal Muusa lépp dimbali ji kookaa ku yóbbe waaye moom jaral nag ko buñ yàlla mayee ñu dund ba suba daañ ci ñëw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 wa rahmatullahi taala wa barakaatu